di ci déglu ci manko TV lëkkaloo ak Darmanko FM ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ginnaaw bañ sant yàlla bor bi subhanahu julli ca sangam ba sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel jullit yëpp ci weeru màggu tedd wi di sox ramadan mubarak di ñaan yàlla bor bi subhanahu wa taala li ñu tawféex bokki ñu ñog yéen tay ci seen jataayu darul ilm wal irtiqa de émission bo xamne altene bu jot de ngeen ci ànd ak seen bokku seen xarit mustafa mbake Diouf ngi nuyu kilifa diine yeb di ñaan yàlla mu doli len tawféex di wax ne fab julit nekk yàlla na ko yàlla jàmmal allahuma unzur man nasara diin waxdul man xadala almuslimina maan ñu ngi nuyu borom kër gi Cheikh Mouhamed Mansour ñu ngi koy ziar di ko ñaanal tawféex di ko ñaan liggéey bi yàlla def ci tawféex yàlla mën na ko yàlla ñu ko defal mbokk yi suñu jataay bu njëkk tey ci daaru alim wal irtiqa ñu ko jëmee ci asawmu wa fadailuhu koor ak li mu ëmb waaye ak ay ngëneelam bokki yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam soññ ñu ci jàngal ñu ci lu bare bare bare ngëneel yi ci nekk tuyaaba yi ci nekk koor nag mooy al imsaaku an al muftiraati min nga fexe ba tere sa bop lépp luy doglo bi jant bi fenké ba ba jant bi so nga bayé ko tayala tax do lek do nan do sëy do jaxaso yu bari do ko def damay wax sax ne koor dëgg mbokk yi yu ñàkk fayda yu bari da nga war a génn li mu miti lool koor bu ñëwee lido yi marché bi da nga gis lido yi maa ngi jéglu ci jaaykat yi day day bari lool lu tax lu tax bu dee bëcc maanaam beneen bës duñ ko jël da ci fo donte kartuñ ca defuñ ca loo xam ne mën nañ ko àtte ne daa aram lutax fomom pomom duñ ko fo ci yenen jamono mais wéru koor dal bu ñëwee ci lañu yéssal lido yi génni ko di dem ci marché bi jënd lido yi bokki ku nekk bokk sa lido ngir yaq satan sank satan euh ngir bëccëg gi nga mëna euh, dakk koor comme niñ koy wax musiba euh, wu lool dama yakane bu da ngay sank satan nang ko sank ci jaamu yalla na ko sànq ci jëf ju jëm ci suñu boroom wala tudd yàlla sa borom subhaanahu wa taala suñu borom nee na binduñu asamaan ak suuf ak li ci diggante bi ngir ñuy fo kon kuy fo rek mbokk yi suñu boroom subhaanahu wa taala belli na la jëln ci yàlla musal kon weeru koor nañ fexe ba lépp luy lu baax lépp luy tuyaaba lépp luy ngëneel nañ ci góor góorlu di ci njëkkante woor ko di yokk julli naa naafile yi di yokk tudd yàlla yi di dimbalante suñu biir ñi néew doole ñu leen di jox dépense di leen dogal te yàlla rek tax di leen dogal te yàlla tax kenn ku nekk am na lu la ci yàlla di suturaal nga fexe ba loolu nga xaaj ko dimbale ci masakin yi ak foqora yi loolu mbokk yi moom lañu war a def ci koor teral ci seen njaboot waaye nag nekkul am ko ba économie réew mi day daanu ci weeru koor ci lu bare bare ndax nit ci sax dañuy gis ne moom jàpp nañ ne koor moom euh, da ngay dem boo xëyee def tuuti dal demaat sa kër dem ca garan place ba dem ci fa ñuy lidoo dem fa ñuy dem yee ngir dàq koor yaakaar naa la ca gën a am solo mooy koor boo ko mënee passé sa palaasu liggéeyukaay di ñaq di ca tedd dara ëpp ko solo ba demee ci administration dañuy wàññi seeni liggéey dañuy wàññi seen i liggéey bu ñuy signé ba midi jot ñu ci bari dañuy arrêté lu tax bokki koor mooy li nga xam ne loo doon def ci lu baax <coughs> danga ko war a yokk jàngale kat dañ gën a jàngale médecin yi nañ gën a faj commerçant yi nañ dem jaay <coughs> communicateur yi nañ dem jëli ay xabaar yu baax tasaare ko jëli ay information yu baax tasaare ko jëli am njàngale tasaare ko kenn sàmm yi dem sàmmi kenn ku nekk la ngay liggéey bokk yi nga yokk ko bañ ko wàññi tey tudd yàlla foo toll di dimbale ñi te yàlla tax bokki loolu mooy koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadisul qudsi yi kullu amali ibnu adam lahu ila sawm aw ila siyaam doomu aadama jëfam yépp moo ko moom ba mu des koor كور موم سوني بروم سبحانه وتعالى نينا وانا اجزي به ما كوي فايل سما باب ما يكتي فايل كو سما باب امول تي كين كومي جار دو ملاكا دو لينين كور بوكو ووري سوني بروم نينا ما لاي فايل سما باب جيف جو خامي نك مبوكي بوكو ديفه يالا جيل يخوم يتادي تك سي يخو مبوكي لول درغنو كو كون نانيو فونك كور جي لومو ميتي ميتي nañ ko nañ ko woor yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu fekkee ne koor dafa ñëw jaxasoo woo caaxaanoo bu la nit saaga nga ne ko dama woor bu la nit tooñee nga ne ko jégganaal te yàlla tax yonent bi sallallahu taala alayhi wa nee na kooku yàlla dana ko jégali bàkkaaram dal ni maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci moom ماغي گينتي كي خاني بكنو سيدنا محمد مغي شي موم ينت مام موي واخ مون لا الخلوف فم السائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك نانا كي وور گيمينيم گا لومو خسو خسو يند وور با جانت سو نانا مو داقال يالا مو گنا نيه سي سونو بوروم الگ يوم القيامه تي خيت گنا نيه سي بارفون الجنه dal di mandargaale ko misk wala mu joxe misk ci misaal bokki gémmiñ gu xasaw day lislaam bëgg koon mais gémmiñu ki woor lu mu xasaw-xasaw moo dàq miski aljanna ëllëg yowmal xiyaamatul akbar bokki nañ leen woor dal di wali saaimi farxataani yafraxuhuma ida aftara farixa bi wa ida laqiya rabbahu fariha bi sawmihi ne na ki woor am na ñaari mbégte yoo xam ne dana ko dab nee na boo wooree ba jant sa boo dogee danga am kontaante tukkuleer yi xam nañ li may wax ngay teg mboolem xeet yi ngay xiiwloo dangay kontaan lool am mbégte dangay ngay gis nga ba jant bi soo ñuy waaja ñuy waaj a joxe dog jot na nga teg say tàndarma teg sa kafe tek sa mew tek sa ataya gis nga suñu bokk alpulaar yi ñu tek seen ataya gis nga dal li tek li nga xamanteni moy mooy say mburu diw ko defar ko tek ñam yi lu ne nga tek ko boli kasi gis nga kafteri krafi da ngay am tek nappi lal nappi mbégte ngay am yonent bi salaa salaam ne loolu mooy benn mbégte bi ci àddina xéwlu sant yàlla nee waaye wa ida laqiya rabbahu fariha bi sawmi boo dajeek yàlla sa boromit it da am mbégte mu neex ci sa koor googu nga wooroon ndax yàlla buur bi subhaanahu dalay fay dalay fay ndeysaan bokk yi yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam nee na koor ak alquran ëllëg yowm alqiyam dañuy ramu jaam bi dañuy ramu jambi koor ak alquran dañuy ramu jambi bi koor da fay wax ne yow suñu borom ki man aaye won na ko wala aaye won nga ko aw ñam ak banex ci bëccëg gi jegewul soxnaam naanu lu sedd naanu lu saf suukar tibut sex dara dugul ci gémmiñam tu ñi wo kong bay desane muy muy muy xalangu di daanu ak jog jóg lol ne tangor tàngoor ko jappan di tangor adina muy mar ak xif ko dal di wax ne yalla lol nga ko ayewon ngir lan <clears throat> ngir man ko nee tay man ko ma koy ram ma koy ram ma koy dugal al janna tangor adina mo nek tangoru sawaram duggi safara bokki nañ len wor dal alquran Quran nang mom, momit day ram day wax nan ki day bu guddee da dan jog di ma ay ko dal mu ay koy nelaw ngir alquran ji kon ram alquran ne man ma jog ram ko bu ko defee alquran ram ko ram mbokk yi fan nga jëm aljanna moy nek sa way moy nek suñu as-siyam wal quran يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة بالنهار والشهوات بالنهار فاشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فاشفعني فيه فيشفع كون ñiy ديكو بوليك نافل دي جان القرآن jàng alxuraan ñooñu ëllëg موين mooy بوكيت لسبكتاتير درمانكو تيفي لكلوك درمانكو ak Darmanko nañu bàyyiwaat xel mbokk yi santaane suñu borom yàlla lum ñu sant suñu intérêt ca nekk waaye moom am nekku ci koor wax na ne njëlbeen gi njëg ne suñu borom la fukki fan njëkk ñaareel bi di fukki fan yi ci topp ñaar fukki ag njëggal ak suñu borom la ñetteel bi di fukki fan yi mujj àgg ca fanweereel wala ñaar fukki juróom-ñeent ya kooku gore ci sawara ngay def awaluhu rahmatun wa wasatuhu maxfiratun wa axiruhu itqun mina naar yàlla ci yàlla boole su koor ñëwee dañuy tëj bunti sawar ubbi bunti aljanna waa sawar ñépp di xéewlu ci mbégte moomu di sant yàlla ngir koor gi bokk yi kon koor dara tolloon ak moom salawaatullahi wasalaamu alayhi ne boo demee ca buntub aljanna am na bunt bu ñuy wax rayaan kenn du ca dugg lu dul ñu doon woor bu ñu duggee ñu tëj bunt ba loolu tekkiwul ne ku dul woor doo dugg aljana waaye dafa am buntu spécial boo xam ne sélection la ñu doon woor ñoom ñoo cay jaare muy rayaan inna lil jannati baaban yuqaalu lahu rayaanu yaquulu ay yuqaalu yowma alqiyaama ayna shaa'imuun fa ida daxala axiruhum uxliqa dalika albaab ka mujj dugg ca woorkat ya bu ñëwee dañu daal di tej bunt yooya bokki koor farata la alquran indi na ko xadis indi ko boroom xam-xam yi ko kon nañ ko fonk ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun suñu borom nee na koor dañu ko farataal ci ñi leen jiitu woon niñ ko farataale ci leen jiitoon noonu lañ ko farawaat farataale ci yéen lenn mooy jubluwaay dañoo bëgg ngeen ragal yàlla bu dee booy woor mbokk yi bu woor gi jaaree ngay sàcc booy woor bu koor gi jaaree ngay tiriyaane booy woor bu koor gi jaaree ngay mooy yàlla boo yaa ngi woor waaye bu koor gi jaaree jàlle it yaa ngi lekk ak jaamur yi di salfaañi seeni seeni ak yelef am na ñoo xam waxuma sax bu koor gi jaaree waaye ci biir koor gi ñu ngay tiriyaande ñu ngay tooñ ñom dal nañu am kon ko koor jëriñu suñu borom dañu fatal ci yéen koor ngir ban objectif ban djublu way laallakum tattaqun ngir ngeen ragal yàlla kon bo ci mënd am ragal suñu borom subhanahu wa taala rek yow leen nga doon def woro da nga doon xiifal sa bopp ak amara sa bopp waaye yow woro شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه suñu borom ne ne weeru koor bi nga xam ci lañu moy ci lañu wacc alquran di lab bi leeral ñepp leeral digënté dëgg ak caaxaan dal na nek ku yalla lo ku sa bakkan wéru koor nga ne ñu la feñ ngay gis wala ñu la feñ ngay dégg bokki boko mëne na nga wor lu nga am ngant lo xam bo woré man nga ca faatu waye damay nampal duma wor dedet wax naa ko benn soxna démb naa ko du noonu man daal damay nampal eh, mënumaa woor comme damay nàmpal daal du ma woor nga xam ne jëmi damay nàmpal mooy ngàntal koor déedéet li ñuy ragal mooy ki ngay nàmpal nga ñàkk a meew ci sa koor googu amuloo ko nampal ba mu loroo ci waaye ñu ngi fi am na ñoo xamante bu ñu amee seen tey bopp ñu ngi ay biberon ñu ngi ay meew ñu ngay rat di ca def bu ñuy jàngale wala bu ñuy liggéey seen i bureau wala bu ñu amee ngant yeneen ngant jox seen i mbindaan bu koor ñëwee nga fës yéene yow benn pexe doo ko def ngir damay nàmpal bokki loolu du ngàntal koor lu dul ne liir bi da cee nar a loroo même boo tolloo ab diggante am na foo xam ne bu la doc boo waxtaanee ak bi dana ne mën ngaa woor ba ca am foo xam ne boo fa àggee mën na lay indi loraange nga door ko di mbokk yi fa man shahida minkum shahra falyasumhu buñ ko caaxaane lii ci nekk ci ay ngëneel mbokk yi bu ko kenn caaxaane bokk na ci ponki lislaam yi mbokk yi seed yaari baati seede yi julli natt azaka woor weeru koor aj makk boo ko mënee kon weer wu am solo la weer woo xam ne ci lañuy tëj bunti sawara tijji bunti ajjana jëng ci seetaan yi nag bokki di xaar jaami yàlla yi buur bi subhanahu wa taala euh, ñu tàllal yàlla seeni loxo lu ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala may may leen bokki koor رمضان لن تدي وحنا أمنا برام خام خام وحنا دي نيو تدي رمضان دان وحنا موم كت داي وال أي بكار داي وال أي بكار دف كو ني دوم داي دف بكار ني دوم لو تخ مام سولو بوكي نانيو باي خال يو بري نك لو ملني خد لو ام سولو لا تي كور امنا ньо خامن دنج كوي ساغاني يونتبي صلى الله تعالى عليه وسلم neena inna fasla siyaamana wa siyaami ahlil kitaabi akilatu suur suñu différence ak kooru ñi dul jullit mooy xëdd ak bañ a xëdd man mënumaa xëdd xëdd daa kii wala trois heures wala deux heures nga lekk dali dali mbëstan dali ne dootoo déedéet bokk yi boo xëddee tuuti ngay toog ñu julli fajar yéex a xëdd daa bokk ci sunna yi teel a dog bul xaar ba marax maase téla dog yéen bi sallallahu alayhi wasallam ne buñu xamoon li nekk ci yéex a ak téla dog li ci nekk ci barki ak ngeenel duñ ko bàyyi sama xet buñ ko xamoon duñ ko bàyyi waye xaar ba ma raxmasé juma je no degut radio bi ne degut da ngay téla dog da bok ci ngeenel fi sahuri la bara barakatu yéen bi sallallahu alayhi wasallam ne qad barke bu rëy ci nekk bo xamne def mbokki jam rek ngay am may wax ne Moustapha sallallahu alayhi wa sallam na ne boo demee bay waaja dog am nag ñaan goo xam ne réservel nañ la ko ne boo ko ñaanee rek yàlla may la ah àllaaxiraa ngi fi àddinaa ngi fi seetal daal fanweeri fan yi saa yoo demee bay waaj dog nga tàllal yàlla say loxo buur bi subhanahu wa dana la nangul ñaan yooyu yàlla nee na yent bi nee na may nañ ki woor bu demee bay waaj dog bu ñaanee yàlla yàlla nangul ko ñaanam waaye nag booy doog dafa am ñaan goo war a wax nañ ci bàyyi xel allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala risqika aftartu faxfir lii ma qaddamtu wa ma axartu bu ko defee nga dog mbokki ñoo leen di sant bu baax di leen gërëm incha allah dañu dellusiwaat ak yéen ci jataayu daaru alim wal irtiqa ci yeneen i tomb yu faslantoo ngeen nañ ci seen xarit seen bokk Euh, Moustapha Mbacke Diouf euh, Serigne Gora Diallo moo nekkoon ci wàllu xarala gi di sant borom kër gi Cheikh Mouhamadou Mansour maa ngi sant soppeek xarit yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.